Amen. xom mbollem sen sénégalais rawati nak kilifa diiné yi ci jappalé ko ci li nga xamné moy sas bi gouvernement bi ko ci lolu té am nañu yaqin ni lolu dinañ ko fi fekk bu soobé yalla kon ñu ngi leen di gërëm di leen assalamu alaykum wa wa barakatuh mbolo mi premier ministre wax ji rafet na

wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwaani wa tamkin ñu sof rek suñuy kàddu ci kàddu yi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkee Serigne Touba tey ci kaw suuf ñu koy ñaar mu yàgg fi lool te ànd ak kàddu yi nga xam ne léegi nga bàyyi ko ci moom te jox nga joxalante mu ay kàddu mu wax mu waxal la bopp mu ay nga déggal sa bopp kon liñ ci def rek mooy mottalil ko kàddu yi mu diggal ne nañ ko jotle jëme ko ci sa jëmu ji kon premier ministre Ousmane Sonko ñu ngi lay delloo am nuyoo bu baax ca ni ko alxuraan santaane wa iza xuyyitum bi taxiyatin fa xayu bi ahsana minha aw rudduha kon ñu ngi lay dalal jàmm bu baax ak mboolem délégation bi nga àndal bépp di la yóbbanteem nuyoo ci sa xarit président de la république Bassirou Diomaye Faye nga xam ne yéen ñaar jënd jëmmu ngeen te loolu itam mooy njëriñu senegal kon ñu ngi ñaan bu baax ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom yaakaar ji nga xam ne réew mi am na ko ci yéen yàlla suñu boroom mottali ko ndax mu nekk njariñu ñëpp di nuyu itam sa ndax Touba moom eh, liñ fi am yombut tawféex la nag jëloo yàlla defal te Sëñ Saliou daana wax ne xolu murid yi fu mu jëm fa la xolu Sëñ jëm am nga tawféex ju rëy na ci taalibe Sëñ Touba bëgg gi ñu la bëgg ak fonk gi la fonk fi mu àgg sax yow mënoo ko xam kon boo doon lim ji la fi nekkal sax day bari ndax kon ñu ngi koy tàmbalee ci Serigne seex Thioro mi nga xam ne moo leen jiite ñoom ñëpp nekkale ci dëkk suñ doom te sa moom yàgg te rafet nga am coom kóolute moom itam wàccoon naa yow ndax nit mënta weesu ab taaw mu tuddi ko ba ci Serigne Assane Mbacké mi nga xam ne moom sama dooma waaye mooy ab taaw man la ko tuddee yàgg na wala ma juróom ñeenti at wala juróom Serigne Moustapha Diouf Lambaye moom mi itam maama ji ñi jëkk a topp suñu Tuubaa ci Moustapha Lo mi nga xam ne bàyyam day sama wóoleel loolu Moustapha Cissé ay ñu ci des yëpp daal ak sëriñ am sëriñ am di Mbàkke ak seex Baara. Cheikh Baara ku am ci ku am ci man ak cofeel la mu wut bàyyiwuma kenn boo limee da ngay juum. waaye ñu ngi lay dellu am nuyu bu baax di bég bu baax a baax di la wax nga sant yàlla sa borom ndax kam min ni'matin fii tey yi niq ma yàlla suñ boroom néew na kum defal ab cër te jaare jaarewu la ci nattu nattu yàlla koy def Sëriñ Tuubaa da daa wax ne tubaab yi nga xam ne ñoo ko fi jëlee woon yóbbu ko bitim réew nee day sant yàlla ci ñoom ndax buñ defutoon liñ def cër bi am du ko am kon yow itam nattu bi dafa may noonu rek nga ko noonu rek nga ko gis waaye nag dund dund nga ko ci dignité nag te loolu jàmbaar jàmbaar dëgg nga ndax mosoo mosoo saalit mosoo saalit fu mu gën a rek yaa ngi woon ak njàmbaar. loolu nag àdduna doo koy soxla nit ki nga xam ne kilifa diine dafa war ne ci kanam nekk royukaay laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana àdduna itam ñoom ñaar dañoo ànd nituk àdduna itam waxtu ne war naa am li ñuy wax marjian te mooy ab delluwaay ndax yaakaar moom bu xasee jeex ci àdduna rek lu ne mën naa xew kon nit ñi moom fépp fu ñu rek yaakaar a tax day ñaar nag yoo ànd mënuñoo tàggoo waaye waruñoo bokk fu ñu jëm bu dee kii def ak diine gi ne ko sëriñ bi daan misaal ci alxuraan rek dafa wax ne abdan aataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunaa ilman bu dee kilifa ak adduna yi te inna makkannaa lahu fil ardi wa aataynaahu min kulli sababan fattabaa sababan kon nag loolu yaakaar ji nga xam ne nit ñi am na am nañ ko ci yaakaar dafa am solo te loolu du ñëpp ko am ndax xëy na ku jóg du politique rek am ñu mbooloo topp la waaye cofeer gi nit ñi am ci yow yombut ak politicien bu ko am loolu nag kon yow itam li nga mën a delloo njukkal Sénégalais yi mooy ni nga tàmbalee rek mooy bañ a fàttaliku sa démb te xool li ci sa kanam siñ sëñ Saliou waxoon président Abdoulaye Wade ba muy door a toog yoon ba mu fi njëkkee jow wax ko ay xalaat yu bari sëñ Saliou ne ko daal li ma lay digal mooy yaar ba mu màggal Tuubaa la sax bi mu falo ba ci màggal ga mm-hmm. mu ne ko lépp loo defoon Tuubaa këri diine yi ci des fu ci lay wàllam na ko fa def ba ca des it bul gestu sa ginnaaw ndax loolu bokk na ci di dimbale nit kon yow itam bokk na ci li nga war a gën a sant yàlla mooy négane ne daaw yaa ngi woon ci biir kaso nekk ci gerew de la fi ren suñ boom jox la cër gi yàlla na bu la xasee bu la xasee ba fayul la la dese mooy sant ko te loolu ab cër la ni ma la ko waxee rek. boo doon xool ñi ko mas ci ñi fi jaar ci politiciens yu bariwut waaye li ci ëpp solo rek mooy baat yooyu ma waxoon mooy dund nga ko ci dignité dund ko ko ci fulla te mosoo saalit ba ca desit muy lu ma seetlu sama bopp mooy mosuma gis ngay politique mbirum diine ndax yàlla def na deux mille deux mille Serigne Cheikh mu suñu Saliou yàlla def na xam naa sa digg moom mu am ak cofeel goo xam ne doom jum jur sax mënu ko weesu doxalu sa digg moom kenn te Serigne Cheikh xam naa ko Serigne Cheikh jëmb la joo xam ne du nituk àdduna nituk àdduna mënu koo tax a benn benn benn dërëm ndax maa ngi fàttaliku 2011 président Abdoulaye di ñëw na fa. di ko gana si bañ ne suba la maître ma jëkki jëkk indi ñaar téeméer million maa moom yàlla ak ñaari doom rek a toog guddi la sax ay onze heures ci guddi minuit ne ko président neen dala ko bëggoon a jàppale ci ngan gi ndax bëgg mu am moo tax mu jox la ko bu sànd woon keroog falaa falaa maa ko gàttandu suñ Cheikh sant ko ci ba noppi ne ko nag waaye waaye nee ko maa ko war a jàpp jàppale maa ko war a jox nee ko lii itam bu ma ko jëlee day mel ne ngan gi kon xamatuma lu may nuru ndax kon day ne ku dugg ci restaurant di jënd rek la daal koy dee kon suñu Cheikh moom te li may wax yàgg na naka jëkk noonu la ko yàlla bindee ma xam sa digg ak moom ba ngay ñëw itam di jël sa jëmm di ko ko jébbal jàpp naa ne mosoo ko wax te moo ko tere te mosuma dégg nga wax ko tam jàppal tam jàppal la ko lool ma xam ci lu bari bari loo xam lu ñu mën a wax ci rajo mu am mbëllëg cofeel am mbëllëg yiw nga àgg ko foo xam ne mosuma gis ab politicien bu ko am ci moom kon loolu rek doy na la sëkk ñii la nekkee ci dëkk bi tam wàccoo nañu yow nañ joxe ne joxe nañ seen jëm joxe seen bakkan joxe seen lépp waaye nag ni nga tàmbalee yow itam. dal na nam xel ndax bi nga jugee rek xam na ni Sénégal gépp leen seq waaye cër bi nga beral Touba adduna sépp xam ne kon delloo nga leen njukkal loolu nag kon ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ak ci turu yoon wépp ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm bu baax màggal gi itam wax dëgg li ngeen ci man def ngeen ci li ngeen man def ngeen ci li ngeen mënut mm-hmm. def ngeen seen yéene waaye def ngeen sax ba def loo xam ne séntuwuñ ko woon ak fi jamono toll te ñeenti weer juróom weer bareegut ku xam fi àddina toll da nga xam ne dara mënugut a dox waaye teewut la ma waxoon président bi kaaru rek sëriñ bi dafa wax ne yàlla day fay yéene door a fay jëf te yàlla def na am na loolu sax mënoon naa ko ba a nettali waaye day baax taalibe yi it xam ba yàlla defee président bi toog ci réew mi yow mu def la premier ministre Cheikh Mouhamadou Mountakha booba nekku fi sax fan yooyu waaye ñaanal la ne yéen ñaar ku si ne suñu mustaxin boo xalaajee daan la ci wax dara ne maa ngi mi ngi ñaan seen ànd bi yàlla sàmbal leen ko ndax yaakaar ji nit ñi ci moom ba ca des fan yii itam seereel na ma ne ñoom de seenum xel sama xel dal na ci ñoom ndax xam naa ne ay jullit dëgg lañ te am nañ yéene fa seeni liggéey réew mi loolu na kon ñoom buñ la seeree la loolu kon doy na sëkk kon li ci des rek mooy góorlu te xam ne ni yéen a gi ci di leen ñaan itam yàlla suñu boom gindi leen taxaw leen te xam ne Sëñ Abdou Lahad da daa wax ne nguur yaar rekk ci nekk nee na moo moo ko weer ñoo yam nee lu ci màggat ak lëndëm daal di wax na it ni baaxoo itam mooy booy booy booy ñëw dañ lee tàcc booy dem waxoo la loolu nag kon ku ko sóoraale rek mën na laa bañ dal ndax nit ñi moom di fi yaa leen di jege ndax faj aajo nit ñi kenn mënu ko faj suñ borom wax ne wala bashata llaahu rizqa li ibaadi la baxaw moom mi nga xam ne moom naa jox ñëpp pour sax sa def ko waaye nag li am solo mooy ak yëg ci nit ñi ak jege leen di leen diglu di ànd ak ñoom li nga nekk la ca des nag yàlla mi mënoon defar adduna si bu defal ko ba ca des si laa daa waxoon ne yaa rek fi ne ki la xëyee ak ki la gontoo mooy ne ki la xëyee daa tëdd ba guddi xalaat ba ba sonn xelam ñëpp daj la. ne ndikki nag na nga feex ba yaakaar ji bu mu tasee ci yow nee na ki la gontoo itam yaakaar dafa dafa xëy woon feneen yaakaaram tase fu mu ñëw ci yow kooku na nga feex bu yaakaar tase ci tase ci kon daal ñi nga xam ne daal ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax euh, dëkk bi moom sa digg ñoom leer nañ ndax li nga am ci ñoom moom ñu ko ci mën a ñu ko fi am bëriwut daanaka damay leen di tooñ sax naa leen. li may fàttali daal diggante Abdoulaye Wade ak murid yi loolu yàlla def na la ko si digg ñoom loolu na kon ñoom wàccoon na yow yow itam ni nga tàmbalee dal nam xel sa rafet na ci jot te ñu duñu seer kenn duñ xamut ndax bu buñ gisuloon loolu ci yow itam dañ cee maandu rek ndax noonu la ma yàlla bindee waaye nag nit moom boo gisee yéeneem xam fa mu jëm lañ lañ ca war a seere da koy seere ko ñu jeexale foofu kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala les,